dugal ci dossier léegi loolu moo ko indiwaat ci dossier yi pour Ousmane Sonko du dara lenn la mooy buur sàll mooy wax ne wone ne Ousmane Sonko warut a bokk bu bokkee dafa may gañe mais yaa ngi jaxase ñaari agenda di ah waay agenda politique oh, agenda judiciaire oh, ma ne agenda politique agent judiciaire mooy Ousmane Sonko warut a bokk bu bokkee daf may gañe loolu la jëfee jaaree ko ci justice. xaw ma lu munti dem fu ñu ko ti jaare mooy du bokk. li ngay wax nii mooy instrumentalisation de la ah, justice. ah waaye yow ma ne ma ne wax ma rek li ma la wax nii lan moo ko dindi lan moo koy firndeel bu ñu ko tëjoon ci lii ci viol bi avec des preuves Adji Sarr wax publiquement ne Mansour kii nu mu tuddati euh, Mamour Diallo moo tëgg combat bi ñu jox ci mu wax. biñ ko laajee sax ne ko lu tax nga euh, Cheikh Mamour Insa mu ne ko dama ko doon fooyee du loolu yëpp am na fi. waaw waaw loolu yëpp nag. MC Niass mm. loolu yëpp am ba lii weesu nag ñu jëlaat beneen dossier loo xam ne ne bokk woon ñu dugal dugal ko ci ba pare ne nañ ko ci tëj moo tax ma ne nag bu ngeen nangoo ñu tëj ko ci ci man jaratul sonn lii nii buñ nangoo ñu tëj ci Ousmane ko ba bokkul Macky Sall warut a bokk bokk. dina gagné élection yi te kenn du ci mën dara ñun ñëpp ñu lekk xeer man maa la wax lii. Ah maa ko wax lii maa la ko wax te bindal tee lu ma wax du deñ 26. ah kon le 26. waaw jepp ko nga bind ko ne ko ñëpp publier. bu ñu seet dama ne. le 26 juin bii. bës bu ñu nangoo Ousmane Sonko bokkul élection. Hmm. ñu fexe ba xañ ko jaay ko doole seetaan Sénégal yëpp seetaan bañ jaay ko doole bokkul. Hmm. Macky Sall warta bokk. parce que moo ne woon nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs nit du tegale ñaari mandat nit lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo yu tegaloo yow dangaa ngaa njool man damaa gàtt mais nit lañ ñun ñaar ñëpp kon loolu leer na amul cinq ak quinze ak vingt trent trente yooyu amul dañ ne nit nit moom da ngay njool wala nga gàtt ñaar lañ waxoon ku nit ku njool wala ku gàtt kon jeex na bu buñ ci toppee loolu ñëw ba ci comme li ma wax nii <laughs> wóor na yàlla Macky Sall dina gagné élection yi gouverner ci réew mi te kenn du ci mën dara parce que doole ji muy jaay Ousmane Sonko ba sénégalais yi seetaan ko doole jooju lay jaayaat gagné élection yi te kenn du ci man dara. mais Ousmane Sonko bu ñuy faral di dégg euh, discours am dafa naan euh, même ci li discours bu mujjee wax daf ne euh, sama candidature dépendrul ci benn justice. waaw plutôt ci askanu Sénégal. waaw askanu Sénégal boobu démb woote nañ mais ñu de. waaw déedéet dama ne. waaw yeewi ñoo woote kaay moox la nag ah, waa defal ndànk waa defal ndànk waa déggal waa defal gis nga nag sénégalais yi li ñu wax kenn ku leen gis nga li leen yëkkali li yëkkati wala lay xunxuñul seen xol hmm. loolu kenn ku nekk fa mu toll ci yow la kon lii kon lii yëngalu leen déet problème li ngeen di wooye séquestration Ousmane Sonko yëngal non yëngal nañu metti nañu lu tax jib non defal ndànk aussi tamit dafa hmm. nekk lépp loo gis circonstance la circonstance la hmm. keroog bi ñu ko tëjee nit ñi mer nañ génn bañ ko bëggee jël jaay ko doole yóbbu ko nit ñi mer nañ tey jàpp nañ ko nit ñi mer nañ naqane nañu mais loo gis rek am na lu ko yëngal parce que nag nit moom la koy la la yëngal doo ko xam yow mii tey bu ma la saagaa yow mun nga ma jéggal am na ñoo xam ne boo leen saagaa dangay ngay dee wala ñu dee du dëgg kenn ku nekk li lay yëngal peut-être li leen di yëngal mu ngi sunu kanam léegi ñoom coow li. la lan moo leen di yëngal xam nga lan moo leen yëngal. nañ jàpp Ousmane Sonko yóbbu. arrestation voilà nañ ko yóbbu. nañ ko yóbbu. xam nga ni ko jàppee nii c'est pas normal. loolu li ngay wax nii. non du menace de nañ ko jàpp yóbbu. loolu kañ du menace dama ne nañ ko jàpp yóbbu. du dañ dafa tooñ. du ko jàpp yóbbu la. déedéet loolu du man maa koy wax di l'avenir nous jugera. jàpp yóbbu après yéen. waaw léegi après réew mi nekk ci jàpp. jàpp doole nekk am candidat. waaw waaw ba tey parce que da ngeen bañ plan. waaw léegi comme amuñ beneen plan. nañ jàpp yóbbu. àdduna ak ñuy seetaan nañ jàpp yóbbu. vous risquez d'aller aux élections dama ne. Ah. Sonko day bokk ci élection yi. Sonko day bokk. même si condamnation. oh, oh day bokk. mënuñ jël ñu sàcc sunu milliards yi ñu mën leen bàyyi ne nañ bokk nga ne kii sàccut fenn waxul lu kii nga bëgg a gis nga sénégalais li may li gën a métti sénégalais ngeen baal ma mooy naafeq dañuy gis lu ne weng ñu war ci wax waxuñ ci gis loo xam ne nag du dara ñu bëgg ci. Eh, eh, eh, insister boo déggee sax ñenn ñu ñu ne Sonko nee na ku dee yaay juraat Sonko dafa yab sénégalais wala yab yaayu jàmbur yi ba ne ku dee sa yaay juraat amul fenn fu ko waxee. te maa ngi ko di. déedéet dama ne ministre de l'intérieur. billaahi wallaahi képp ku génnee ne Sonko nee na. Mm. waxuma nga dagg de. waaw wala nangam fu mu ne ku dee sa yaay juraat dafa ne même xale yi ñu ngi ne ku dee sa yaay juraat. mais loolu du ci am. mais kon jeex na te loolu du ci xam nga kon dégg nga ko. dégg nañ ko de kon waa jeex na. waa léegi nag ku lu keneen wax nag